Euh, loolu moom bettu ma parce que ku gis ni ñu jàppee ba jaxate nga xam ne kooku dañ ko bëgg a yóbbu prison parce que su fekkoon ne dañ ko jox convocation may ko mu wuyu ci justice mën nga am njort bu rafet mais koo xam ne dañu déplacer les éléments de la police ñu dem ba fekk ko fi ñu ko war a fekk jàpp ko kon kooku prison lañ ko bëgg a yóbbu si no avait pas péril pour jour férié ñu dem di ko jëli le lendemain matin très tôt ñu jëli l'imam Ndaw donc y a une volonté de vouloir mettre en prison la personne sinon on n'allait pas aller chercher cette personne manu militari xaw ma jox nañ ko convocation xaw ma joxuñ ko convocation mais dégguma ne daw na comme dawul bañ koy recherche mënoon nañ ko bàyyi mu ñëw volontairement wuyu si parce que fooguma ne dina doon ndaw mhm. donc ça surprend pas que ñu ne placé nañ ko sous mandat de dépôt léegi nag ce qu'il faut poser comme question mooy qui s'est autosaisi le procureur de la République Abdou Karim Diop c'est le même procureur qui il a quelques mois on le taxait d'être à la solde du pouvoir du président Macky Sall mm-hmm. qui qu'est-ce qui a changé c'est la même personne qui exerce les mêmes fonctions donc ñi ko doon taxé d'être à la solde du président Macky tey jii ñeneen mën nañ ko taxer d'être à la solde du président Bassirou jommay Faye parce que lim doon def tey jii prérogative yooyu la exercer ba jël ci ba jaxate tout ça pour dire que suñu justice kon problème mu texte la am problème mu réforme moo posé ci justice te bokk na si lu ñu reproché le régime bi génn mooy le bilan immatériel président Macky suñu nee bilan matériel bërki dem moo njaay tontu bi mooy inauguration BRT donc il a un bilan côté infrastructure mais qu'est-ce qu'on lui reproche d'être un régime qui a été policier en un moment donné parce que jàpp nañ fi ay nit am ñoo xam ne téye nañ leen ci ay délit d'opinion en l'occurrence le président actuel lu mu def un post sur Facebook loolu lañ ko téye woon léegi nag Bah Diakhaté lan lañ ko téye dafa wax ñu ne li mu wax def ci laal ormaw ku ñu jox sañ-sañu euh, jiiti réew loolu sax alhamdulilah ñu découvrir ko comme ni ñu découvrir woon corruption à la jeunesse donc le code pénal sénégalais ndeke ñu lu ñu si ëmp bëri na mm-hmm. parce que avec ces affaires judiciaires on découvre mm-hmm. des infractions pénales yoo xam ne ça nous permettra ñu nekk au parfum de la situation. offense au premier ministre. offense au premier ministre lañ ko woowee. Mhm. mais dañu ne rek une personne buy exercer tout wala certaines prérogatives du président. Mhm. mais dans ce cette posture il faut mettre tous les fonctionnaires sénégalais kon. parce que dans la fonction publique sénégalaise y a des personnes qui exercent certaines prérogatives du président de la République. cette vague. Donc ce n'est pas seulement le Premier ministre qui en dispose. Hormis le Premier ministre, on peut y mettre, y greffer d'autres ministres, des directeurs généraux, des gouverneurs et des préfets. Mm N'est-ce pas? Mm-hmm. Donc c'est une nouvelle euh, infraction bu ñuy xamandoo mais aussi ñu bàyyi ci xel. Ce qu'il faut retenir, Fatima. bu ñu nee dafa teel ñii biñ ñëwee yàggul bërki démb am na ku ñu recevoir mu ni loolu syndicalistes yi ñoo koy maye les délais de grâce. Mhm. mais même bu dul délai de grâce ku ñu fal ba jox la ndomboy tànk liggéey la ñuy xaar si yow suñu xoolee gisuñu lu ñuy xaar si yow les du ñu wax quelle loi la ñu teg établir ko ne ñii fi toog démb lañ ñëw bërki démb lañ ñëw 12 ans lañ fekk mais loolu c'est de la politique. loolu discours politique la ñi koy wax argumentaire bi ñuy teg c'est de la politique mais dans le discours scientifique on évalue les actes on évalue les solutions mais aussi on évalue les changements am na ku ma doon waxal mu ni ma jeeg seet bu ñu bu ñu bu ñu takk bu ñëwee ci kër gi sëy si xanaa dinañ xam ne ñëw na ci menu bi ci bagage yi muy indi ci changement yi muy war a mën a apporter ci kër gi mais jeeg du ñëw sëy si bees ñim fa fekk amul benn changement bu ñu nemmeeku c'est la même chose ay nit bu ñu ñëwee bees dañuy xam ci seeni doxalin lii moo ci bees lii moo ci beesul. les actes posés. et la justice sénégalaise. bi amee bi mu amee benn incompréhension ci digganteem ak peuple bi nga xam ne moo tax muy exercer parce que la justice est rendue au nom du peuple. mais loolu dafa am problème depuis des années parce que justice bi tout le temps dañuy jàpp ne ci autorité politique bi ci moom rek lay wéyee ay ndigalam. et donc ce qui veut dire que les réforme yi nga xamante ne ñu ngi koy xaar ci nouveau régime bi. war na gaaw ñu baxal ko déjà ñu ngi li nga xamante ne moom moo jëm ci réforme yooyu très très euh, prochainement euh, mën a sóobu ci loolu pour permettre à la population sénégalaise mën a gis seen bopp bu baax a baax ci li nga xamante ne moom moo di wàllub yoon wi. man Fatima su ma amee. lu ma rafetluwul ci sa lekk man duma ko jëriñoo su fekkee man yow li ngay def man gisuma ci sama bopp ma koy dénoncer man waruma ko utiliser donc ces lois et règlements cette action judiciaire bi ñu yàgg critiquer bu ñëwee ñu koy wéyal kon à quoi bon ñu ko doon critiquer avant que yi ñu koy utiliser nañ ko fi dindi pour man buñ ko dindee ba pare ba teg réforme yi gën ñu doog utiliser loolu. mais mënuñu ñëw méthode et procédé yi ñu doon dénoncer démb ñu di ko utiliser à quoi bon faire un changement donc li fi am mooy. Mhm. Euh, tey jii Bah Diakhaté ak loo ko mën a waxal c'est un détenu boo xam ne ci liberté d'opinion am lañ ko jàppee li mu wax offensé na irrité na loolu rek nga ko mën a jàppee parce que deful violence deful voie de fait deful atteinte à la sûreté de l'État ou bien menace nekkul une menace pour la sécurité publique ay nit la wax offensé leen muy le premier ministre ci biir euh, chef d'inculpation yi dinañu xam ndax retenir nañu li ñu doon wax ne li mu évaluer le patrimoine du président on pour pour davantage mais lu pour le moment dañu jàpp ni c'est le premier ministre moom la attaqué ba topp ko mais ce premier ministre mm-hmm. propos yi Bah Diakhaté tenir ci affaire LGBT ak ci discours bi mu tenir à l'université Cheikh Anta Diop n'est-ce le premier ministre a dit je me en tant que président du PASTEF mhm. mais mm pas en tant que premier ministre du Sénégal mhm. tey Bah Diakhaté lu ñu koy toppee ci délit boo xam ne kuy exercer fonction président la mhm. donc nan la nit ñi di def mais y' a un y' a am na énigme les ah. propos qu'il a am na am na est-ce que yow rafetlu nga. kàddu yu mu yëkkati. mais <laughs> colonel toi tu n'es pas le journaliste qui pose les questions non c'est interactif non le débat il est interactif mais papa en posant les questions ne prend pas le rôle de Fatima le débat est interactif c'est elle qui m'interpelle et je réponds à ses questions d'accord continue pour terminer sur ce sujet donc mystère am na parce que su fekkee personne bi ñi bi topp Bah Diakhaté en qualité de premier ministre la personne bi doon wax da dafa préciser publiquement que ne moom il parle en qualité de chef de parti. Très bien. merci beaucoup Ndeye faatu euh, peut-être euh, dañuy euh, ba tey dañuy desandi ci li nga xamante ne ne moom mooy sujet bi ñu doon waxtaan ñeel wàllub rek justice bi mais également dafay laal ba laal li nga xamante ne moom moo di wàllu politique parce que gis nañ ne tey démb waa APR génnee nañ ab communiqué communiqué boo xamante ne également pour ñëw défendre ki nga xamante ne moom moo di Bah Diakhaté ba dem ba ne lu nu mel menace la ci li nga xamante ne moom moo di paix social par rapport ak li nga xamante ne moom mooy affaire Bah Diakhaté est-ce que nekkul lu yee côtoyer ñi ne di alliés yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kujje gi. alliés alliés yan <laughs> alliés yi. non dama juum les opposants je veux dire pas les alliés parce que les alliés moom mooy ñi nga xamante ne ñoo ànd ak gouvernement bi. opposants yi de ko ciy wax. les opposants oui. les mhm. euh, mhm. pour le moment. j'ai j'ai pas vu les opposants. pour le moment j'ai une opposition. <laughs> pour incarnée par l'APR. pour mais j'ai pas waaw j'ai dégg moo tax ma ne la. Mhm. soo ne les opposants dégguma leen. Mhm. ba fu ñu toll nii déggoo laa des fois maa ngi la naan. Mhm. bennoo dañu ne gagner ensemble gouverner ensemble. oui mais ba léegi defaguñu mémorandum wala rencontre wala congrès pour wax ni. on en, on <laughs> ensemble, on s'oppose ensemble. On s'oppose ensemble. <laughs> communiqué. Euh, s'adresse directement. à ñi communiqué de l'APR. communiqué de l'APR te boobu léegi waa APR ñuy jóg pour jàppale Bah Diakhaté. qui un un de leurs militants parce que tamit euh, foofu la ñu xamee bañ nañ ko ba ñoom. nee nañ waaw dañu ne activiste républicain <laughs> lan la ñu wax donc ça veut